mu di euh, Satou ak El Maestro ñoom ñi nga xamante ne ay ndaanaan lañu bien sûr euh, El Maestro mu ngi bàyyeekoo ca euh, Diourbel waaye jamono ji mu ngi yeewoo ca Soprim ñu ngi ànd ak Satou aussi moom mu ngi yeewoo ca Thiaroye waa Thiaroye waa Soprim ñu ngi leen di ziar Demba Gueye Demba Sound Gueye ak soxnaam Abisata ñu ngi foofu ca Soprim ñu ngi leen di nuyu kon bokk les premiers stars à recevoir sur ce plateau nañu yegg si bu ko defee ñu def mu laay ca gin en attendant dama leen di ñu xool ko te Voilà, très bien. Retour euh, sur le euh, plateau à Weekend Star, le rendez-vous des stars, le rendez-vous des euh, mélomanes. 88 628 20 20, defee ñu wax jox leen ngeen wax euh, delloo ñu gis ngeen teranga Sénégal yi euh, sax ci teranga yi la bokk euh, allah moo tax mu ñëw toog sama wet donc ñu am yéene waxtaan ak moom kii mooy Satou mu ngi yeewoo ca Caaroy waa Caaroy Géej Gaar ñu ngi di ziar. ziar bu baax di leen jox seen wàccuwaay euh, te di leen wax rek passez un bon week-end bien sûr avec votre fille mu di euh, Satou El Maestro de l'autre côté euh, c'est un homme plein d'inspiration mm-hmm. moom dafa ni wax yi day dox ci bopp bi macha allah yàlla na ko yàlla lafal cat bu baax a baax a baax mu ngi bàyyeekoo ca Diourbel waaye jamono ji mu ngi yeewoo foofu ca Soprim li ñuy def nag mooy tàmbale avec les dames avec les dames macha allah waa waa waa waa daal nii la la def <laughs> yëkkatil micro bi. ah. Euh, <laughs> plateau bi di nuyu ñi seetaan bu baax a baax. Mm-hmm. voilà di leen wax ne kontaan nañ ci invitation bi. di nuyu waa Thiaroye fi ñuy jógee di leen wax kontaan nañ wax bien kooku mooy Satou euh, borom Thiaroye kii nga xamante ne nag moo war a yëpp. Mm-hmm. waa jàngee borom dërëj lox bi macha allah <laughs> El Maestro ziar ak màggal. la DJ Nicolas. Euh, plaisir la pour ma toogaat ak yow parce que man damay am mbégte saa yu may def ak émission parce que gis naa ni nga koy defee quoi. ci mais en valeur l' loolu c' est quelque chose quoi. di nuyu xale yi yaañ yi. ak sama tata Mado <laughs> waaw ñoom macha allah yal na leen yàlla lafal cat. amiin yaa maestro la artiste musicien beatmaker. compositeur de son. d'accord digital musique. très bien. macha allah man damay am plaisir gis leen parce que nee son bi dama ko yàgg dégg si TikTok bi vraiment. Euh, qu'est-ce que ça fait en tant qu'artiste ngeen di dégg son bi TikTok chaque jour ngeen koy dégg euh, résultat bi qu'est-ce que ça fait. waaw euh, man moom en tant qu'artiste dama dañ naan artiste bu defee son chaque jour day xaar résultat. amaana nag xamoo ban jour lay doon. Mhm. mais man yàlla defoon na maa benn résultat mais xaw ma ne woon ci mu laay cegin lay doon. donc fierté bi ma ci am mooy li may wax feneen rek di ko waxaat fii. mooy li ma tànn satu mu am réussite. mënoon naa tànn n'importe qui parce que xam naa artiste bu nekk fii ñu bëri Sénégal. mais j'ai eu confiance à satu parce que gars xamuñu ko sax bu noonu. mais man dama ko gëm xam ne talant la ñu def affaire bi mu am réussite. donc voilà. yéen ñaar jokkal ma joor jokkal leen bi yéen ñaar ah, nu mu demee noonu parce que man tamit da ma xaw a euh, booy déglu euh, son bi daf lay yóbbu fu sori comme ñun ñii tey xale yi dañuy foo dañuy kaf dañuy ree mais yéen da ngeen a ñëw ci li nga xam ne ñun yow la ci loolu la ñuy dund. Mm-hmm. Euh, jokkal maa joor leen bi lan la. waaw dama nekkoon di seetaan Jibi Sey. artiste man parce que man su ma seetaanul su ma deful musique seetaanuma football maa ngi seetaan théâtre yi. Jibi Sey ndaanaan la. bu mag ma téye sama doom. Eh, di seetaan Jibi Sey xale bi di commencé jooy ma fekk Jibi mi ngi fecc en même temps mu lay cegin bi rek may nax xale bi naan ko mu lay cegin. mu lay ne pourquoi pas lii mën nekk son de. après ma jël commencé defar instrumental bi. parce que je suis beatmaker en même léegi ma ne ci ban contexte laa koy woyee ma ne pourquoi pas mbëggeel wane ñàkk complexe maanaam complexe entre góor ak jigéen mari et sa warul am complexe naturellement góor war na mën a feccal jabaram et tout maanaam complicité boobu laa bëggoon wane waaw moom la ñu mettre en valeur ci clip bi noonu lañ noonu Modou Fall koy tere ni ma dafa mel yaa ngi nekk ci sa yëfu bopp donc exactement ci lan nga nekk lan nga mus a def lan nga mus a et puis collaboration bi nga def ak moom naka nga ko dundee man maa ngi commencé sama sama carrière deux mille deux mille vingt janvier deux mille vingt fin euh, mais man moom ñoo bokk label daanaka dañuy sentir def benn affaire rek mu woo ma ne ma satu lii laa bëgg def ñu def ko naturellement comme laa ci gën mu demee naturellement ñu dem studio bind taf taf affaire yi mel ni mu mel voilà c'est quelque chose de naturel voilà. mais alors dama jógee ba exagéré maanaam yow loolu fan nga ko teg. waaw parce que dañu jógee ba exagéré. <laughs> alhamdulilah comme ma doon nu def ba mu baax. comme Samira li muy def. comme Betty ci la la li muy def. voilà noonu lay <laughs> bien c'est important El Maestro ak Satou euh, ñuy waxtaan ak ñoom ci euh, li nga xamante ne ñoom moom la ñu indil. Euh, mm-hmm. source d'inspiration dégg ngeen fu mu juddoo ci diggante Fop Doom ak xool Jibi Sey mu laaj ca gin daal di fay fen mais la composition. de ce morceau c'est-à-dire aujourd'hui vous êtes beatmaker vous êtes compositeur en même temps vous arrangez euh, mais naka nga def ba mën a arranger loolu noonu yëpp mën ko composer euh, pour mun ko jox euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy mélomanes yi surtout bien sûr ñi nga xamante ne say fans lañ ok euh, d'habitude euh, man su may defar musique bu ma defaree damay teg base su ma tegee base yi ci base boobu laay way en boucle quoi ñu way ci ba pare bu ñu wayee ba pare ba mixé ba nga xam ne son bi toog na damay jëlaat acapella bi voix bi kase ma tegaat ko ci instrumental bi pour arranger fii la son bi di wàccee fii la sabari di jógee fii la kii noonu laa ko defee refrain bi comme ni may defee sound designer ci yenn film film yi su may def film am na rythme xeex bu amee mhm. ni ngay àndee lu am cadence ak tristesse bu amee ni ngay àndee noonu la rek pour man lépp musique lépp arrangement la donc noonu la ma dikkee ñu defee ko noonu te texte yi tamit ci studio ba lañ ko defee refrain bi daal créé woon nañ ko mais texte kii bi couplet yi ci biir studio aujourd'hui seetlu nañu benn benn tradi moderne ah ñuy ñuy def ba di ko mën di ko di ko synchroniser <laughs> euh, comment vous vous arrivez à à joindre ñaar yooyu tradi ak moderne parce que ku ne xam na ne les instruments euh, euh, modernes yi mhm. du évident mu bokk ak instruments yu traditionnels yi mhm. mais vous vous arrivez à à joindre les deux comment vous faites nooy def waaw liggéey bu yàgg la parce que dama créer benn genre damaa osé ne damay créer benn genre musical bu tudd SN Beat. SN Beat. SN Beat maanaam Sénégal Beat. léegi dem je je Sénégal on est riche en ethnie. ci kii maanaam ethnie musicale quoi. musicalement tukkuleer bi dafa am rythme am. ku nekk am séeréer bi diversité musicale bu bu balèze am. voilà donc on est riche sur le plan musical. Mm-hmm. léegi nag pourquoi pas ñu exploiter loolu. ndax gars yi dañuy concentré wu ci sabari kase mballax alors que mbalax bi marimba bi ngay dégg sax du suñu cosaan parce que le le le marimba c'est un instrument euh, de musique comme comme kora comme kii léegi nag man j'essaie de de de respecter les normes. yaa ngi ñoom 87 ak de. attention ci marimba demal. <laughs> de de de de j'essaie de de maanaam euh, jël moderniser maanaam norme musique international bi dama koy respecter tout en coctélisant euh, la musique traditionnelle avec la musique moderne et daf ma jaral ma dem école nationale des arts def fa six ans am sama médaille de solfège di jeu piano di def looloo moo waral looloo moo tax jàng dafa am solo quoi c'est très important xam nga métier ak sax bi ñoo euh, bu ci mokkul euh, sonal borom euh, pour terminer en beauté na ci ngeen continuer di def duo yi ou bien da di choisir ku ci nekk tamit di essayer di capp sa morom rek waaw. on va commencer par Satou. exactement très bien léegi balaa ñuy commencer ak Satou. di dem ak ci maestro déglu 88 628 20 20 88 waa Cheikh bi maa ngi lay na nga siyaar naka yite yi. sant nañ bu baax maa ngi maa ngi boolu ñaari tali. ñaari tali ba tooy na xepp. xep fi mu nekk loolu la muy wax. waaye yow yow tooyoo de yow. déedéet man fi ne moom maa ngi baax. très bien très bien alhamdulilah ba indiw fa ay jafe-jafe rek foofu ca ñaari tali. Euh, waa ñaari tali nag. canalisation euh, yi fii fan bu tàkk daal. d'accord léegi da ngay déplacé wu en même temps pour ñuy mun di wax muy gën di leer n'est-ce pas euh, ngir mu dem ca kaw ca kanam ci lu baax ban région tour bi ak tur bi nga ne noo tudd yow. man Mor Talla noo sant TFM. wala Teranga Sénégal. dégg nga. Mor noo sant. lu ma waaw. may la ko wala ma jaay ah, ah, boo ma ko mayee boo ma ma ko jaay seetal man dama yor sama teranga <laughs> seetal. <laughs> <laughs> doomu doomu Sika bay wax ak doomu ñaari tali de. merci beaucoup très bien waaw euh, Mortala. région yaa ngi nii euh, sama ginnaaw ban ban ban ban région nga bëgg ñu jël tey. waaw xam nga nag buy taw bi ndeysaan Mortala Saalum Saalum yi. waaw ayca Saalum Saalum boo waxee Saalum Saalum xel yi dafay dem ci euh, Kaolack wala fatik wala. Kaolack yow ah. xoolal fu la yoon la xam nga Saalum moom dama cee bopp ba mu jeex jaaral ci sax. léegi ban nga bëgg ban nga ci bëgg yaa may wax Kaffrine Kaolack wala Fatick. waaw kon ñu dem Fatick xool. ñu dem Fatick bien donc ñu dem Fatick avec la magie de la télé comme vous savez c'est le miroir du Sénégal Fatick nga gi nii Fatick Fatick ñëwal Fatick ana Fatick Fatick defal différence ñu xool très bien. Fatick dans Teranga Sénégal saison 3 on est en direct sur les antennes de la télévision Futur Média dans votre émission week Star euh, qui est le rendez-vous des mélomanes le rendez-vous bien sûr euh, des euh, artistes li ñuy def mooy Fatick a Sénégal saison 3 ayca ñu dem lu mu indi Fatick 4 waaw. cinquante mille francs CFA. Mortala. waaw. Mortala ba yaa ngi koy yëg. waaw dal na ma. ah defe naa ne ci ci ni mu tooyee xep ba loo am nga ci am nga ci am nga ci cinquante mille francs CFA de du ay naxe. waaw mais ñu sant yàlla rek di leen remercier bu baax. amiin jaajëf. voilà très bien donc euh, Mortala bul coupé euh, xaaral ñu jël la ci ginnaaw équipe bu euh, Khadija Daffé ñoom Vieux Diouf ak ñoom Eva ñoom nabu Ice Jordan bu ko defee dinañ la toppatoo bu baax di leen fàttali ba tey ñu ngi ànd ak transfert d'argent bi gën bi wóor te yàgg bu baax ak les Africains mu di Orange Money liggéey bu mucc ay fii ci réew mi waaye tamit liggéey bu mucc ay ci bitim réew ba ci sous-région bi na xam nga ne jamono ji Burkina Faso Niger Côte d'Ivoire ba ci fi nga xamante ne mooy Mali Euh, ba waa euh, Guinée Bissau ñoom ñëpp ñu ngi ciy gis seen bopp bu baax a baax a baax euh, lépp lu jëm ci wàllum transaction nag nee nañu les retraits sont 100 pour cent gratuits lu jëm ci frais d'envoi nag da ngay fay 1 virgule 5 pour cent lépp ak Orange Money ñu sargal leen delloo leen jukkal bu baax a baax a baax question bu mujj bi nga xamante ne posé nañu leen ko fii bonbon Laetitia moom moo leen ko posé ñu ne yow yaay njëkkee ayca njëkkee pour revenir ci question Samira. oui loolu lu ñuy envisager faire la lu ñuy envisager def la man ak maestro daanaka ñoo bokk ñoo bokk label bi ñu nekk. donc vous permettez voilà. <laughs> merci voilà très euh, loolu lu ñuy def la parce que ñoo bokk album. des fois waa Thiaroye dinañ ma ay problème da ko invité te bàyyi ko des fois dañuy euh, dañuy soxla def euh, dañuy bëgg def dara entre nous ñu def ko. voilà terewul ku nekk am nga sa carrière solo ku nekk am na sa carrière personnelle booy def. Mhm. voilà loolu moom ça va venir naturellement. incha allah très bien bien sûr. très waaw comme comme ni ni mu ko waxee rek xam nga ñun label la bu tudd digital musique yaa a d'autres artistes. muy Satou muy Baye Cheikh muy. Kabayeri muy wax muy way law la cat. Mhm. Euh, muy euh, Mia moom Mia Sène. d'accord donc dañuy dañuy dañuy def ay son. Mhm. am na mais famille bi famille bi ñoom ñooy digital euh, digital digit family. d'accord donc yàgg nañ génnee ay son génne nañ fi équipe nationale bu Sénégal ak yeneen sa ay yeneen son donc. Mhm. mais en duo bi am na ñu ñu koy naan yéen da ngeen maanaam da ngeen déggoo. pourquoi pas ngeen di def ay ay duo. Mhm. loolu moom mooy ndax Serigne Touba Mouride la. incha allah jërëjëf kon ñu ngi lay di sant di leen a <laughs> ah, maam El Hadj Malick ku leer na leen ne ab tijaan macha allah yàlla yàlla xeeb sant nañ leen gërëm nañ leen bu baax très rapidement le message euh, bi nga xamante ne moom ngeen bëgg a lancer seen i mbokk ak seen i ay sope ah merci di leen kontaane aussi ci invitation bi di nuyu waa Thiaroye bu baax parce que fa lañ jógee di nuyu sama yaay sama waa kër di leen wax merci beaucoup voilà. très bien merci beaucoup El Maïs. waaw man dama leen di jox rendez-vous vendredi prochain incha allah le 29. Euh, parce que damay lancé album bi. léegi entrée entrée mille francs prévente bi jour J 3000. ma leen di woo yéen ñëpp. Mhm. tamit ma invité euh, MCU bu Wakaam. waaw mooy en face monument bi noonu. nice nice endroit foofu laa koy defee. Mhm. incha allah d'accord euh, parce que tamit il faut que yi tamit di la gis ngeen ngay def ay performances. sur donc di leen di nuyu di kontaan ci invitation bi. Euh, di leen wax la famille ou la mort je vaincrai incha ah allah. incha allah incha allah incha allah nag kenn koo xamante ne ma nga njaareem ndax ndaanaan du toog fii te ñuy fàtte beneen ndaanaan muy Adja mhm. euh, taasukat moom itam di taasukat bu mag. Ah, kon nag ñoom it nañ tendre jàppale li nga xamante ne moom moo di xale yi. ndax mag moom mooy jàppale xale. Mhm. kon yàlla may la tendre bu baax la moom référence la quoi foofu. très bien merci beaucoup euh, Satou ñoo ngi lay sant di la gërëm bu baax nga nuyu ñu waa Caaroy bu baax bon week